waaw non non d'abord Cameroun gañe nañ ko mais gagné ko en phase finale mais gagné nañ ko gagné nañ ko fii Issa Dia Euh, moo moo dugal bi bi ak c'est vrai en 2012. dem dem dem dem dëkkam arbitre bi may leen penalty ak yëpp gañew ñoom mënuñu ñu gañe c'est vrai c'est vrai en 2012 donc donc Cameroun gañe nañ ko mais en phase finale c'est vrai que ne. en phase finale na kii mais c'est un match important parce que Sénégal Sénégal Cameroun soo ko waxee c'est deux géants d'Afrique. Mm-hmm. Sénégal Cameroun c'est c'est c'est deux géants d'Afrique donc euh, euh, match la boo xam ne. ñun dañ ko soxla ñoom aussi dañ ko soxla mais ñun surtout dañ ko soxla parce que par rapport ak match bi ñu joué bi passé on, on prend une défaite chez nous contre l'Algérie donc on a besoin de de de euh, encore euh, euh, yi defaraat mental bi reprendre confiance donc euh, c'est pour ça que c'est un match important donc je suis sûr que les garçons ils, ils, ils vont pas le prendre comme li nga wax revanchard mais ils vont le prendre de façon euh, euh, très sérieuse parce que quand même après résultat bi ñu am euh, euh, contre Algérie déjà dans le monde actuel match match amical amatul. donc toutes les compétitions sont sont sont dañ koy jouer pour gagner ko mais euh, surtout quand quand c'est au niveau professionnel où les garçons ils ils que tout compte donc à partir de ce moment euh, moi je pense que ce sera un très bon match où les garçons seront très motivés mais où ils à cœur aussi de gagner le Cameroun pour partir après Euh, à la CAN en toute tranquillité c'est vrai que am na ay match intermédiaire après de de de préparation de coupe du monde mais même match yooyu sax pour nga mun ko préparer en toute confiance munoo jógee ci défaitu Algérie après dem pertaat encore contre Cameroun pour pour après enchaîner donc il faut de la confiance football dafa soxla confiance et cette confiance là on l'obtient en en en gagnant euh, euh, comme li gars yi di di wax c'est dans la victoire qu'on construit donc mm -hmm. il faut Cameroun dañu war a jouer ak moom ëllëg ñu war a ak moom li nga xamante moo di Coupe d'Afrique dans trois mois mhm. est-ce yow yow coach nga mhm. est match suba bi est-ce que ni muy di Aliou Cissé wala ki nga xamante moo di Rigobert Song maanaam xaw a làq seen li nga xamante moo di seen ay système ñu xaw am yoo xam ne dañu ko denc di xaar maanaam le le quinze le janvier non ah, xam nga xam nga dans le monde actuel du football kenn mënatul làq dara kenn mënul làq dara mënul làq dara y a y il y a tous les moyens pour pour avoir accès à tout ce que fait tout ce que fait euh, euh, l'adversaire donc mënatoo la dara de et, et la compétition léegi léegi nii on jour demain mais on jour après dans mm -hmm. trois mois mhm. donc dans trois mois beaucoup de choses peuvent se peuvent se passer ce sera pas le même contexte déjà mhm. donc yu bëri après du du du nekk benn mhm. donc pour man ça le fait que ñu bokk poule ne change rien du tout par rapport ak euh, ak ni ñu war a aborder aborder match bi je suis sûr que les deux équipes vont vont jouer ce match là pour le pour le gagner mhm. déjà moom fii fii mu amee xaw a am tuuti euh, par rapport fi muy laalee euh, euh, Coupe d'Afrique bi suñu match suñu match contre ñoom peut-être mooy au niveau psychologique parce que xëy na ki gagné dina am ascendant effectivement ah, waaw sur sur l'autre donc moo tax enjeu yooyu day day day dugg moo tax je pense que ne euh, ce sera un très bon match où les deux équipes vont chercher à gagner et nous on a tout intérêt à le faire après suñu suñu match bi nga xam ne moom la ñu perte fii sur des détails contre l'Algérie